wala pare nga. amuñu brassard bi moom dañ koy wëri. waaye mais brassard ñu tuwaat mais brassard mais brassard est-ce que mi ngi amante ba tey. jaay ba léegi ah bon. Mm-hmm. abu nuyu est-ce que sëriñ boobu bu jëlee brassard du jox mission boobu. duudu <coughs> fa la nekkoon duudu fa la nekkoon am nga duudu waa Pastef bi daf ci liggéey <coughs> ci projet bi actionnaire na ci. <coughs> dëgg la bu may regretté dafa xeex. non dafa ah? xeex nag bu may regretté. taal sa micro ne xëy nanga nga taal pourtant tàkk na de. taal na ko. baax na waaw. ñoom dañu commencé saboté nee nañ leen. ñu ngi saboté nee euh, micro yii maa ngi nuyu sama sponsor bi nga xam ne moom ma offrir micro yi en direct. Mhm. micro yi amatoo benn excuse. vraiment nañu wax dëgg rek micro yii ci lañ nit ñi xamee est-ce que aayu ngeen wala aayu leen infiltré ngeen wala du ngeen infiltré. de vraiment euh, micro de dernière génération ay tactile la ute naa ak sama xudda bi yee ma yoroon Saliou mbaa micro yi son yi baax na gisu ko gisuma nag benn kii na ma son yu baaxul. Taylor Taylor laay laaj ndax son kuy baax na. ah gis nga xool pourtant duudu nag day sànq gis nga duudu nag bëggul ko xam rek. yow vingt nga man cinquante. kii un kilo xool jox la boppam cinquante kii ñaata ah, Amina. un kilo la buy balaa muy wax. kii Abu. un kilo deux cent. Ouais, kon ko maax yow. non yow 20 man 50. man man maa man man maa. bi ngay nuyoo 20 personnes ñoo nekkoon di seetaan. À. ma jóg di nuyoo affaire bi dem 50. À. balaa ngay balaa ngay joxaat kii affaire bi di naaw. dem 1 kilo. abu ñëw un deux cent. waaw waaw ni nga koy waxee rek di nuyu ñëpp. Hmm. waaw nuyu nuyu ziar ñëpp comme tey. tout tànk bi dafay nekk te turam bi léemu na bërëb bi. xam nga exemple gis gis na nu mu làkkatoo ne man xam nga ne mi ngi toog fee nëbbatu fee. léemu na maa dugg rek seen ko ma ne ko te comme moom mooy seen alimaamu moom moom Ndakaaru mooy borom Ndakaaru léemu na bërëb bi ñuy ziar ñëpp nag. Mhm. Euh, ziar euh, kër gi moom ñaari parrain yi. Mhm. bi ci jiitu. Mhm. Euh, Pape Maodo Sy da baax. téye kër gi. Mm-hmm. bàyyi xel. Mm-hmm. ñu koy nuyu ak njabootam yëpp. Mm-hmm. beneen bi sëñ Moustapha euh, Mbacke la karam. moom moom tey euh, foog ma paas la ko. mu nekk nit koo xam ni aussi tamit mu ngi bàyyi xel. kër gi ak njaboot bu baax a baax bi ma Cheikh Khoureychi Niass. di nuyu bu baax. non bu ma fàtte deux jours avant fàttali ma bés bi de. bés bi noonu de jox nañ ma vidéo bi complet. waaw kay waaw bu am saaru diin. bu mmh. Dakar. Mmh. Mmh. Euh, jox na ma vidéo bi. le 8 anniversaire Cheikh Al Islam. stade municipal bu bu parcelle. muy xadara bu mag. bu populaire mais li ci am solo mooy. cours magistral. Euh, Cheikh May Diab at bu nekk mu bàyyi fi ay leçons. yoo xam ne ci citoyenneté mhm. ci jeunesse bi ci mhm. républicain wax aussi ci tarixa bi te mhm. comme fi mu toll moom xaadimul umma nekk ci diggante euh, suñu fii ak ci ci monde bi waaw boo dugg see ndakaaru nag gan la cheikh al mooy ñëw le huit donc bu ñu jógee le huit le dix ñu dellu buleel sëñ Moustapha Sy Al Amin waaw macha tamit incha allah dinañ ko jàllale fii te sëñ Moustapha Sy Al Amin nag mooy sëñ Abdou Sy Al Amin parce que moom moo taxawee sëñ Al Amin kenn Mm-hmm. affaire Cheikh Omar Diagne bi mom rek la ci gis. Mm-hmm. en pleine -hmm. ci -hmm. jaarul sax ci turam. daf ne allah mm -hmm. wow wow c'est-à-dire lolu mom moy cëru ku kilifa. mbam allah mm -hmm. bu taxaw di nan nañu xolan mbindu mag ñi. taxaway bobu sëñ Moustapha Al amin am. moom lañ kep ñep wara am. mom du xaar nak ba ñun ñi songu -hmm. mom ku songu mag ñi mu jog taxaw. dëgg waaw euh, donc côté boobu la ñuy wax comme ni ko mm-hmm. <laughs> Amina waxee. Mm-hmm. parce que pour man damaa jàpp ni ni. Mm-hmm. service civil religieuse ak nervi religieuse ak lépp. parce que Cheikh Oumar Diagne tooñul politiciens yi dafa tooñ xalif général yi. Mm. xalif général yi seen i maam moo tax ñu nekk xalif général. Serigne Touba élagement Hadj ñoo ñooñu ñoo fi nekk daara ji moo jur république bi. lu tubaab ñemewul woon. lu colon ñemewul woon. lu fi benn président ñemewul woon Senghor nekk fi ba jóge fi mag ñi sëñ sëñ Abdoulaye Wade jël gouvernement yëpp daan dem Touba di fa fanaan Macky Sall ñëw indi programme am benn nit ñëw yegg si ñu nommé la par décret ci gouvernement bi nga taxaw songu xalif généraux maamu xalif généraux yi sos tarixa ba pare di dem élection législative mhm. ñu naan la ay ñii ñoo soxla majorité te denc Cheikh Oumar Diagne ci seen wet mhm. loolu képp koo xam ne yaa ngi yaa ngi ciy joxe yaa ngi ciy bàyyi xel war ngaa tiit loolu mhm. parce que Cheikh Omar Diagne deful excuse publique déedéet mu ngi yor décret te ñi attaqué Ousmane sonk dañu leen demander à ce que ñu def ay excuse ñu libéré leen te moom ñi nga xam ne ñooy kilifa maamu maamu Ousmane sonk yi mhm. ak kilifa maamook yaayu jomaa yi ñoom la song Mm-hmm. ñom ñu bayiko fofu mm-hmm. donc le combat c'est Touba Tivaouane Medina Baye mm-hmm. Tayba Niassène ñep parce que Thiénaba képp fépp fo xam ne tarixa am fa moy fofu lañ jëm le 17 nak moy départager les talibés tricheurs les taalibe yi nga xam ne dañuy mbubboo kër yi mm-hmm. ba pare ne ci biir kër yi eenal sëriñ yi ci biir kër yi waaw parce que faux taalibe yi parce que nit mm-hmm. bu fongee dafa song dafa song maamu fa nekk mm-hmm. nga soutenir ka mu àndal mooy bëggoo maamu ko da nga koy mbubboo donc di nuyu ñëpp di ziar ñëpp di leen wax le 17 au delà de la république pour sauver la république c'est aussi tamit pour consolider suñu tarixa yi ak suñu pas-pas yi parce que nit dafa taxaw publiquement taxaw nañu ay mafia lañu taxaw nañu association de malfaiteurs la ñuy def taxaw mm-hmm. nañu gàmmook màggal mm-hmm. taxaw retourné waat ñëw nañu suñu mbindu mag ñi nañ ko corriger mbind mu jaaxal arab yi mm-hmm. jaaxal naar yi créé nañu waxabist créé nañu sophiste lu ne créé nañ ko mënuñu dugg mag ñi protéger leen mais loolu tey bu ñu yeewee ba ñu màgg am koo xam ne ñëw ñu jël ko recycler ko ci république mu dugg naan ñu ay juma euh, palais bi dafa war am jàkkaak dañu war a maa raxas palais maa nangam palais pale bo xamni ni sëñ sëñ sidi si bara duguna fa julli fa mhm. mhm. bo xamni ñi sante si nekkon nañ ay conseillers ci biir présidence mhm. te biir présidence dafa am ay cadres yu sante Mbàkke ak yu sante si mais buñ ñu ba dugg fofu titre yoy dañ na dëgg la ñu teg ko fofu mu tok ñom ñu continuer di def je m'en fous comme ah, si comme ni nga koy waxee si ce n'était rien ce n'est rien fait non mais lolu c'est catastrophique Cheikh Omar Diagne Macky Sall mayu 4 heures de temps Pape Amadou Sarr donc président Macky Sall mayul won 4 heures de temps Pape Amadou Sarr té lolu lu lu ndaw la won ben ben ki de langage rek la écart de langage sëriñ yi du ñu nuyu jigen té nangam nangam mais de ko dindi détacher ko mm, mm. sorele ko fofu yépp mm. ki tay ñi dañ ko tek sen wet conserver ko mu continuer nan moy dalal ñi ñi ci bir palais donc l'affaire Cheikh Omar Diagne ce n'est pas l'affaire des partis politiques mm-hmm. c'est l'affaire des des des des chefs religieux et l'affaire aussi tamit des tarixa jox ko les moyens généraux bañu bañu jëlé Cheikh Mohamedou Lamine Moustapha Bara consul yemuñu si dañu dañu lettre bi. Mhm. si méridien dañ ko pare dindi ko consul Jidda. Mhm. doomu si Alaaji Baara. Mhm. sëñ naa Baara. ah dindi nañ ko dindi kon ban objectif ñi lañu am. méridien président coow li am nga yëkkati ko teg ñëwaat génneewaat ko. ba pare bàyyi Cheikh Omar fekk ki yore pèlerinage. fekk ki yore pèlerinage muy mu mu am taxawaay bu rafet. Je suis mais suis content de bu rafet Je suis format bi général général diplomate mais mission pèlerinage diplomate mhm, déjà parce que diplomatie dafa am mhm. ñi ñi sous les règles. mbay ak ñeneen ngi mhm. mais gis nañ ñi fi indi nga diplomatie deux parties dafa am une partie diplomatique am beneen partie boo xam ne ne organisation la. Hmm. Hmm. mais nga ñëw dindi dindi commissariat te loolu dañ ko waroon évaluer sax. Hmm. xoolaat comme commissariat bi na ndax dañ koy hmm. def au conseil ndax dañ koy def benn benn benn benn conseil de hmm. surveillance dajale fa ay nit mais nga ñëw rek dindi indi beneen général te évaluer guñ bi fi nekk donc donc yooyu aussi tamit dañu ko war ba pare bëgg ñu naxé ay direction de la daara lool bi ko Macky Sall di def Macky mo fi indi grand prix mais moom direction ba faalé ñu ko sax mais Macky Sall moo indi grand prix pour le Coran def ko décret defal leen journée Coran gis nga nitu daara yi man fofu ma jaaxal bac arabe Macky Sall moo fi indi. dëgg la hmm. indi grand prix joxe ci ba boole ci ay pays extérieur yóbbu leen fële jour boobu Maodo fay ci bopam sax ñew na fa taxaw ba ci tag Macky. Hmm. ba pare jël ne len duñu ñu def direction génnee budget jox len pour ñu subventionné leen. Hmm. créer direction boobu ne balaa ñu koy yóbbu diko def ministère plein mais Macky ko jiitu ñu xey and indi jim. nitu daara yëpp commencé di tàcc. ñom tamit parfois dafa dafa mel dañuy xép dañ leen di tuufeel benn affaire rek li sëñ Baara wax euh, sëñ Cheikh euh, kii wax euh, Bas sëñ Cheikh Bass Abdou Khadre mm-hmm. mu ne li ngeen fi indi li ñu fiy génnee ko ëpp mm-hmm. Magal Touba mooy dugal deux cent plus de deux cent cinquante milliards ci keesu état mm, dëgg la mm-hmm. gàmmu Tiwaawoon mooy dugal ay centaines de milliards boo duggee kër sëriñ bu nekk waañam rek boo ko dajalee at mën na nekk budget sëriñ Abdou Aline daan na génne ay millions par jour te ba léegi barke baa ngi foofu mais léegi kenn comprendre salu xol li ma yone. yónnee. Mm-hmm. fa indi aadiya bu bu jaaxal ci munu ñu fa indi taranga bu jaaxal sëriñ ci mm-hmm. parce que ba sëriñ ci di tabax ay ay château di yor ay seni di yor mm-hmm. lenen bobu ñom seeni mam ñinga ci kër sëriñ yi di taxawal seeni mam ñinga ci kër ñu leen di tarbiya. donc il faut que tamit ñu xamé ñan ñoy talibé yi ñi sëriñ yi jaral bakken ak ñi politiciens yi jaral bakken. parce que ñu libéré salu kër sëriñ yi si libéré basangu kër sëriñ yi libéré kër yi dem tok ci seeni permanence c'est le lépp le set lay leer. d'accord alors léegi euh, <clears throat> am na léegi benn. Euh,